asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal man Moustapha Mbacke ma bëggoon a leeral tuuti ci mbirum Serigne Assane Mbacke mii Serigne Assane maag bàyyam ñoo bokk benn bàyyi moom nag ñu ngi koy tudd ci mbirum góor jigéen naan day yekkataan ay xale sëñ Assane maag moom ñoo yaroondoo Serigne Saliou moo ñu yar ci xel kom yàgg nañ te xam naa ko bu baax mbokk boo gis nag am na xarit te dañoo yàgg man ak moom sëñ Saliou ñu boole woon seigne assane nak li ñukoy tuddu ni lepp ay tuma la seigne assane ñing ko andil communication ajjuma mu ñew police téye ko ci saasa diko dor dor yi metti sonal ko ne ko da nga wax te da nga signé mbir mi ñu lay tuddu yaw la yaa def dor ko fa dor yi metti seigne assane moma netti li dembu yag nan am nan ñeenti waxtu man ak mu gidel ma ci yalla ne ma wuma ci wuma ci dan ma fekk fama tok ñu ñu fat ma manam yobuma tejj ma di dor dor dóor yu metti maa ngi ma te lima degg ci refi de presse bi ñu di wax wal fa jiri wax nako ko sikefem wax nako dara du ci dëgg ñu ne manam seigne asan mo ni len li ni ab natt la bu dal ci sama kaw dan ma liggey ki ma liggéey seen la sante dem na gambi dem na fu nekk di ci faju lool lepp dara du ci dëgg lool lepp dara du ci dëgg li li journaliste yi wax nak maam te lépp di ay sos ñoom ci seen bopp ni la ma leere ni lépp ay sos la aba seen fii nag laa ci commencé danaa ci defaat yeneen i wax yoo xam ni duma ci deltu ginnaaw mukk ndax xam naa sëñ Assane mii li liñ koy tuumaal laale wu ci katt wu ci te dara du ci dëkk wasalaamaaleykum wa rahmatullah